mën nga koo fayle ba tax mu ne jamono yooyu gor dafa am jaam am mu ne nag bu dee gor li fay dugg ci deret ñetteel ja mën nga koo fayle bu dee jaam li fay dugg ci deret ñaar ja mën nga koo fayle kon ci takk-takk rek fekkee fasiwoo lu mat ñett daal ndax léegi jaam amatut kon dégam fasiwoo lu mat ñett rek li fekk idda jay jeex mën ngaa fayli fayli nag mooy nga wax rek ne jëlaat naa sama soxna mbaa nga dem jotee moom te jublu ca fayli su boobaa nag jigéen ñi sañ te bañ ay mbokkam sañ ñoo bañ te doo ci joxewaat dara itam fayn kaarun dem nekk na mi man di jigéen joo xam ne lam tax yedd matuta bërëg aw mi man wala muy jigéen joo xam ne xaja isat naago na minal max yedd ci bërëg tallaqaha kon mu fase ko matasha saa yu ko soobee maanaam bu fekkee soxnaam dafa ndawe ba du gis deret kon moom saa yu ko fasee rek baax na ndax li li tax ñuy bañ ñu fasee ci jamono yi koo ko gis deret mooy du mën a tàmbalee iddaw lu may dara jooju daa jeex ndegam kii nag moom daa ndawe ba du ko gis xam nañ ne iddaam ñetti weer lay doon moom kon nag saa yu ko fasee rek baax na ba tey bu fekkee day koo xam daa magee ba du gisat deret ba tey saa yu ko fasee rek baax na ndax ñetti weer rek lay am moom du ko yées du ko ëpp wa kasaalika naka noone alxaamilu aji ëmb kam bëgg a fase bu fekkee dafa ëmb itam saa yu ko fasee rek baax na ndax ka ëmb moom iddaam mi ngi yem rek ci am doom bu amee doom rek iddaam jeex waxtu tajaxu def na sañ a fay li alxaamilu aji ëmb ja maalum tabax li feeg muccul doom ja wal mu'taddatu ak aji xiddawu bi shuhuri ci weer maalum tan qadi li feeg jeexut alxiddatu idda ja la ñu waxam rek mooy ñëwaat képp koo fase te mucc ñett rek bu la neexee faylu ko li fekk idda jay jeex bu dee ko ëmb moom lay jeex idda ja mooy mu am doom kon li fekk amul doom rek mën nga koo fayli bu dee ko xam ay weer lay idda woo itam mooy kandawe ba du gis deret wala ka màggee ba du ko gisati ñetti weer lay am kon kooku ba tey li fekk idda ji jeexul rek li fekk weer yi jeexul rek mën nga koo fayli wal aqraaw aqraaw nag xiyee ñoom al athaaru ñoo di laab ya bi suñ borom ne wal mutallaqaatu yatarabbas na bi anfusihinna salaasata qurooyin ñañu fase dañu négandiku salaasata qurooyin xar u boobu ci langue arab dafa am ñaari prix day firi ak laab di firi mbërëk bu dee ci yoon waa maali moom lañ koy firee ay laab te dañ koy firee mbërëk nga xam ne kon ñoom ay laab la ñuy wàññi xam ne jigéen buñ ko fasee te fekk mu toll ci laab day wàññi waale googa laab su gisaatee deret ba laab mu yaari laab su gisaatee jeneen deret nag ba laab ci jooja kon loolu mooy laabu ñetteel ga bu ci gisaatee deret rek kon ñetti laab yëpp mat na ñoom ay laab la ñuy wàññi bu dee ci yoon maalik wayun haa def na tere an yu tallixa mu fase fil xaydi ci waxtu mbërëk fa in tallaxa ndeem fase na nag lazima xoo mu war ko araam na soxnaam toolu gis deret mu di ko fase kon fase ci jamono gis deret moom lu araam la du tee na bu ko defee fase ma dal yoon da koy forcé moom góor ga ci mu fay li soxnaam soosu bu fekkee luñ mën a fay li la xam nga bu xam nga bu xasee ma ñett moom ñett mënu koo fay ndax jëkk dafee war a jaar waaye bu fekkee ne benn fase la mbaa ñaar nga xam ne fase ma jeexut te mu fase ko jamono deret dañ koy wax ne ko faaw da nga koy fayli tax mu naan wéyu jibaru def na ko forcé xaala rajxati ci fayli ga maalam tam xadd li fekk jeexut alxidatu idda ja ñu ko yëgul nag ba idda ji jeex nag kon jeex na jeex na fayli mënatu caa am ndax bu idda jeex kenn mënatu fayleeti bu fekkee daa fase woon lim bu mat ni ki fase ko ñetti yoon ba tey wala boobu mooy ñetteel ba it ba tey kon duñ ko mën a forcé ci tey nga fayli ko su ko faylee moom da koy téye ba mu laab ca deret joojee téye ga ba mu laab ci deret joojee moom mënta ñàkk waaye nag bu laabee ca deret joojee itam dañu noo digal ca addis ba mu bàyyi ko ba mu gisaat deret ba laabaat ca deret joojee yooyu jamono nag su ko bëggee fase door koo fase su ko bëggee téye itam mën na koo téye suñu nee des ko war a forcé nag forcé ga ci benn jataay lay doon àttekat ba moo koy wax ne ko fay lil sa soxna si sañoo koo bañ te soo ko defut ma daal di tëj kaso su fekkee taxul mu nangu mu tëj ko kaso fi saasa bu ko tëjee kaso ne ko fay lil léegi léegi mbaa ma dóor la su nanguwut a fay li mu daal di koy dóor su ko dóoree te taxul mu nangoo fay li moom àttekat bi ci boppam mooy daal di fayli soxna sa ci forcé du ko sañ a bañ ko wax ne ko faylil naa la sa soxna si donte nag moom amul yéene ca loola moom ma fase amu ci jublu itam du tee rek bu ko àttekat bi faylee day daal di wecci faylik boppam nga xam ne mën naa wéy joteeg moom mën naa wéy jàppe ko soxna muy wéy wala ci jigéen ja nga xam ne lam ya duxul wéetul bi ak moom yu talliquha dana ko fase matacha saa yu ko soobee nee na buñ la mayee soxna soo xam ne jotiwul ak moom dara ak may dong la kon waxtu la neex rek nga koy fase ndax moom du iddawu sax far képp kuñ mayee te kooku jotiwut ak moom dara rek ñu ko fasee du jar muy iddaw idda waru ko nañ ko daal di mayewaat fa saasa mbaa ka ko fase mën na ko daal takkaat fa saasa kooku nag kon waxtu woo ko fase rek baax ndax amul iddaam jooy yokk mbaa dara ndax du iddawu sax far man amul iddaam jooy yàggal bañ naa du ko fase ci mbërëm mbaa dara ndax moom ndegam idda waru ko rek waxtu woo ko fase baax na wal waaxidatu waaye benn pase tubiinuwaa dana ko faccal waaye moom nag boo ko fasee benn dong itam doo ko mën a fayleeti ndax xam nga fayli ci idda lañ koy def te moom du iddawu moo tax kon boo ko fasee benn rek daan na koy faccal mooy doo ko mën a fayleeti ndax ñu ngi fayli ci biir idda te moom idda waru ko moo tax amul idda ba nga di ko fayli wa salaasu ñetti fase tuharrimuha dana ko araamal illa ba ànd zawjin dara ci gannaaw jëkkër ki nga may di jutewu la ak moom dara boo ko fasee ñett ñettee dana ko araamal doo ko sañ a takkati ba kenn jëkkër di fi jaar moo keneen ñooy moo ci boobu wàll koo xas fase ñetti yoon rek bala nga ko mën a takkaat faaw jëkkër jaar fa wa man xaala ku wax li saw jëti yi ñeel soxnaam ne ko anti yow taalixun aji fase nga fahiya moom loolu waaxidatun benn lañ koy jàppee xataa yan wi yembate mu yéenee ak sara lopp min daalika ci loolee ku wax soxnaam ne ko fase naa la waaye foofu rek la yem néew ko benn mbaa ñaar mbaa ñett dañuy jàpp ne benn am na boo defee àttekat laaj ko nag ba xam loo jublu woon ci fase naa la ji bu ne ñaar mu nekk ko ñaar bu ne ñett mu nekk ko ñett bu fekkee ka fase xamutoon ba xam fase dañ koy wàññi naa benn ñaar ñettam déet mu ne rek fase naa la xamu ci moom lu mu ci yéene naa benn ñaar ñett wax ji gën a wóor mooy dañ koy jàpp rek benn fase nga xam ne kon bu idda ji jeexut sañ na koo fayli ndegam wéetoon naa ak moom bu idda ji jeexee itam mën na koo takkaat tu aajow mi xaar jëkkër jaar fa wal xulxu summi ko talxatun menn pase la laara ci xatamu ndeetu fay li fiihaa muy nekk ci moom way lam yu sàmmi ak doonte tudd talaaxan am pase isa axtat fa ndem jox na ko shay an dara fa xalaa te mu summee ko bi ci moom mi nafsihi ci boppam summi ko mooy jigéen ji doyal ci sëy ba ba jaral ko fay alal saa yu joxe alal la moom jigéen ji ngir ñu may ko baat nag bu ko góor gënewul may naa la sa baatin dañuy jàpp ne moom góor gi fase na soxna sa parce que moo xam ne du ko sañ a fay li ndax xam nga su ko sañee fay li kon alal ja mu joxe da koy ñàkk ndax day joxe alal ba noppi mu ne ko fayli naa loolu moo tax ne kon bu ko see fay alal moom jigéen ngir ñu may ko baatam rek bu ko xul ne ko fase naa la dañ jàpp ne fase na ko rek moom dañ koy jàpp menn parce que moo xam du am fay li bu idda ji jeexee te jubuwaat na mën na koo takkaat waaye fay li moom du ci am wa man xaala ku wax li saw jëti yi ñeel soxnaam ne ko anti yow taalixun aji fase nga albartata pase mu dog fa xiye moom loolu salaasu ñett la daxala moo ko wéet na biha ak moom aw la wedduxul wala wéetut ak moom ku wax soxnaam ne ko fase naa la pase mu dog jàpp dog moom ñett koy def waaw ñett lañ koy jàppee moo xam dañ ko ko may kese yam ci jotte wéet ak moom dara wala jot naa wéet ak moom ñoo ci moom moom daal bu waxee soxnaam ne ko fase naa la fase mu dog ñett lañ koy jàppee moom wa in xaala ndéem wax na ko ne ko bari yétun aji set nga ci jëkkër aw xali yétun wala aji wet nga ci jëkkër aw xaraamun ba aji araam nga ci sa jëkkër aw xabluki wala sa buum xala xaari bi ki nekk na sa jogare sa buum mi ngi sa jogare mooy fu la neex demal ndax bu ñu mësaa di wëtal ak jur dañ koy yewi jàpp ci buum nga di ko jiital muy dem dem ba sori ñu sànni buum nga mu dal ca ndodd ma man ko ne ko mën ngaa dem nag fu la neex jëmal fori ba ba ngay wàññi ko kon nag boo waxee soxnaam ne ko xablu ki xala xaari bi ki loolu mooy fu la neex jëmal yooyu yëpp nag faxiya moom loolu salaasu ñett lay doon fillat yi ci jigéen ji nga xam ne daxal wéet na biha ak moom wayu na waawaay def na ko may yéeneem fillat yi ci jigéen ji nga xam ne lamee duxul wéetul biha ak moom nee na bu waxee soxnaam ne ko anti bariyatun wala anti xaliyatun wala anti haramun wala wala anti habluki ala gharibiki yi mel ni moom nee na bu ko waxee soxnaam dañuy seet ba xam dañu ko koo may kese yem ci wala jot naa wéet ak moom bu fekkee day koo xam ne dañu ko koo may ba mu wéet ak moom bu ko waxee kenn ci baat yi ñett lañ koy jàppee bu dee koo xam ne nag moom dañ ko may rek yem ci waaye jot jotiwut ak moom dara kon nañ ko ci may yéene mooy ñu ko wax ne ko loo jublu bu ne benn ñu jàpp benn bu ne ñaar ñu jàpp ñaar bu ne ñett ñu jàpp ñett waaye nañ wax ji gën a wër mooy xablu ki xalaa xaali bi ki noom xablu ki xalaa xaali bi ki ñett lañ koy jàppee moom moo xam ku wéetal la moo xam ku wéetalul la yamal yamal wuñ ko bariya ak xaliya ak xaraam déedéet xablu ki xalaa xaali bi ki moom bu ko waxee rek jàppee ko ñett daxala bi aw lam ya doxul am na nag secret bu nekk foofu boo xam ne bu mat a xam la te mat a ràññee mooy baat yi nga xam ne moom la góor gay wax bañ ne fase na soxnaam dañ koy takk ci foofee mu nekk nañu aadawoo fase rek ndax baat yi mu la wax nii moom ñoom ñoo ko daa jëfandikoo fa mu doon taalife téere bi ak béréb bi demee noona aada yi ñu mën doon nag muy wolof yi muy séréer yi muy ñeneen ñi fu mën doon daal dañuy seet baat yi nga xam ne moom la ñu ëpp jëfandikoo ci buñ dee fase ñu seet bu ñu waxee baat ya lañ ca daa ëpp jublu ci aada ñu àttee leen ca noona loolu nag lu mat a xàmmi lu mat a ràññee la wala mu tallaqaddu kañu fase xawal bi naa ci njëkk weet laxaa ñeel na ko ni su sadaax genn wàllu can nga maanaam nag buñ la mayee soxna jotiwu la ak moom dara nga jékki-jékki fase ko kon can nga ko war a jox danga koy jox genn wàll ga waaw kon jàppal ne kuñ la may rek nga fase ko te jote wala ak moom dara danga koy jox kenn wàllu can nga soo jote woon ak moom moom can gépp nga koy jox waaye ndegam jote wala ak moom dara koy fase nag du tee nga jox genn wàllu can nga illa an tanfuwa ndare bu dafa baale an walis ko xiye moom ci boppam moom jigéen ja in kaanat dem nekk na tayiban di ab jekk ka nga fase njëkk wéet nga war koo jox genn wàllu can bu fekkee ne magum jëmb la te nee na baal na la genn wàllu can gi kon baax na du aajo nga dee ko jox wa in kaanat dem nekk na bikkaran di xiit fa daalika loolee ilaa abiha jëm na ci baayam ba su fekkee day gone nekkagul jeeg mënta wee mbiri boppam kon baayam la ñuy seet bu la baayam ne baal naa la genn wàll can gi kon du aajo joxe waaye wa kazalika naka noonu asayidu sang ba fii amatihi ci jébbeeram ba jamono yi jaam amee biñ la mayee soxna soo xam ne jaam la nga jekki-jekki daal koy fase te jutu te wéetu la ak moom jutu la ak moom dara kon xam nga war nga koo jox genn wàllu can léegi moom mën la ko moom mën la koo baal sangam ba nga xam ne moo ko sañ a maye te moo la ko mayoon sax kooku moom bu la baalee genn wàllu can nga baax na waaye bu la ko baal faaw nga joxe ko wa man tallaxa ku fase fa yam baxi dana yàlla hoññel ko an yu mattiha mu yóbbal ko boo fasee jigéen nag ba muy dem bëgg nañ nga seral xolam am loo ko jox ci alal loolu nag yaay seet rek lu sa kàttan toll fu sa man-man toll rek nga jox ko lu toll noonu wala yu ci bëri waaye def ko ci forcé dañ la forcé ci faaw nga jox ko nangam ci alal wala tii jigéen da nga xam ne lamee duxul wéetul bi ak moom waxad farada te dogaloon na can laxaa ñeel ko fala mu taxata dit yóbbal laxaa di ko ñeel nee na bu dee kuñ la may koo xam ne jot laa wéet ak moom mukk te fekkan na nga waxal ko can kon xam nga yoon nee na la boo ko fasee da nga koy jox genn wàllu can nga kon genn wàllu can nga doy na ab yóbbal du aajo nga di ko joxaat leneen ndax xam nga yow yóbbuloo ko dara dina ko may dong yem ci jotiwul ak moom dara te waxal gi nga ko wax can tax tax na yoon ne faaw nga jox genn wàllu can nga kon genn wàll gi nga koy jox doy na doy na ab yóbbal du aajo joxaat ko leneen boole ja wala lil muxtani xas du jaageenu ñeel aji summi ko maanaam jigéen joo xam daa doyal ci sëy bi comme jaral ko fay la alal ndax nga may ko baatam kooku bu dee dem mëtta jox jenn alal ndax moom li mu bëggoon am na ko mooy tàggoo yow comme jaral ko sax fay la alal kon kooku du aajo muy dem nga di ko jox dara wa in maata ndem faatu na xanil la ti bàyyi jigéen joo xam ne lam ya farid dogalutoon can laxaa ñeel ko wala mu yëbb ni te wéetutoon bi ak moom fa laxaa kon ñeel na ko almiraas doon nga wala sadaax te deetug can laxaa di ko ñeel góor buñ ko mayee soxna te wax nañ can ga nam war a toll maanaam su góor ko faatoo te jotiwul soxna sa dara itam du tee soxna sa boole yaar dana am can nga ñu waxante woon dana doon tam boole ci bu fekkoon ne góor ga daa faatu nag te fekk waxuñu woon genn can nag dañ ko mayoon rek yem ci su góor ga faatoo day doon rek yem ci te bañ a am ab te bañ a am ak can waaw foofu rek la teqalikoo bi amee walaw daxal doon te wetoon na biha ak moom nag kaana kon nekk la xàññeel ko sa daaxul misli canu kem in lam takun dem nekkutoon radiyat di gërëm bi shayin ci dara maalumin dul luñ xam bu fekkoon ne moom góor gi laata muy faatu jotoon naa wéet ak soxna sax waaye waxlu ko woon genn can nag xam nga day ne woon suñ ku ko mayee sëyub joyal mooy waxuñu can wërta wéet ak moom te waxlu ko can waaye moom nag wéet naa ak moom te jotu koo wax ak can daal di faatu nag moom góor gi kon su boobaa dañuy seet li ñu cane ay moroom jox ko ko ndax wéet gi ñu wéet ak moom moo tax war naa am can kon nañu seet li ñu cane ay moroom jox ko ko te du ko tee doon nag moom bu fekkee wax nañ ba juboo can sàngam nag googa lañ koy jox moom wattu raddu def na sañ a delloo almar atu jigéen ja minal junooni ngir ak ndof wal jisaami ak ngaana wal barasi ak siti wa daayil farji ak jàngoro yi pëy nee na buñ mayee ni soxna nëbbu ko ca jàngoro joo xam ne xam moom xamu ko woon te ba mu ko xamee itam neexu ko ni ki jigéen ñi daa amee ak ndof mbaa daa amee ngaana mbaa daa amee siti mbaa daa amee ayub ca sawukaay ba lépp ñu nëbbu ko nag kon saa yu ko yëgee rek moom góor gi mën naa jékki-jékki génn ci sëy ba fa in daxala ndee wéet na biha ak moom wala mu yaalam te yëgu doon waddaa mu joox sadaqaa canam nga wara jaxate mu dellu bihi ci can nga xalaa abiha ci baayam ba su fekkee xës na joteeg moom moom faaw mu war koo jox can waaye day delluwaat nag ca ka ko mayoon jigéen ji ti waxu ko sikk si kookaa koy remboursé can nga waaw day jox jigéen tan ca delluwaat ci baay ba ko mayoon mu daal di koy delloo can nga wa kasaalika naka noonu in zawajaha ndee maye na ko axooxaa mbokk mu góor ba tey bu fekkee càmmeñ moo ko may woon nga xam ne jàpp ne xamoon na sikk si da koo nëbboon rek ba tey kon muy remboursé waat jëkkër ji can googee wa in zawajaha ndeem maye na ko nag waliyun kilifa laysa bi xaribil xaraabati gokk du aji jege ak mbokk du aji jege ak jege ñaale falaasee kon di dara xaalis di ko ca wax bu fekkee nag ka maye jigéen ja moom yoon moo ne ko yaa war a maye mu maye rek waaye mën naa bañ a xam sikk sa ndax moom day kilifa gu sori mel ne doomi baay bu ndaw seeni baay rek bokk ñu ne ko yow yaa war a maye mu daal di maye ndax la seeni baay bokk kooku bu ci sikk sa feeñee ba góor ga joxe can ndax fekk nañ jote bu noppi moo jigéen ja du tax mën a wax ka maye woon ne ko yaa may fay ndax kooku moom day kilifa gu sori mën naa bañ a xam loola ba cay kompaloo wala yekkoon waaye du nekk nag la xaañeel jigéen ja illaa rubu dinaar ndare kaaru dinaar waaye yooyu jam itam soxna sa dañ koy jox gën gaa néewi can rek benn jox ko kaaru dinaar mbaa ñett dërëm ci yoon gën gaa néewi can waaye dis ko jox can góob loolu wayu axaru def na yeexe al mutaradu gëttalee ci joteeg soxnaam sanatan diiru at fa in waxte andeem laal na mooy dem jote naag moom ci diiru at mi kon baax na mooy tontu ne wa illaa ndeem jotiwut ak moom ci at mi furiqa kon teqaleef bay naxumaa seen diggante incha allah ndeem soob na jigéen ja maanaam kuñ may soxna ci mu tële joteeg moom dañ koy bàyyeeg soxna sa diiru at mu nekk ak moom ba xam dana man joteeg moom déet su manee ci diiru at mi kon loolu baax na at ma matee nag te taxul man nag bu neexee jigéen ja bu wéy rek si ànd ak moom ca noona ñu bañ a tàggoo bu ko neexee itam nag ñu tàggale leen bala noo jàll nu fàttalee ne sikk yi nga xam ne bu ko góor gi fekkee ca soxna sa te xamu ko ca woon te it neexu ko ba mu ko xamee dana sañ a génn ca sëy ba dañ fay ko alalam ba tey kat fekkee ne jigéen ji moo fekk sikk yu mel noonu ca jëkkëram it te xamu ko ca woon it daal di sañ a génn ca sëy ba sikk yooyu nag moo doon ak ndof ak ngaana ak siti ñu dolli ca benn rek mooy biñ dee jotee jote góoru jigéen am ca kuy génne xayta yent yooyu moom ku ko fekk ci ka ngay séyal rek te xamoo ko ca woon rek danga danga sañ a génn ca sëy ba dana waxoon nag ne góor gi bu fekkee xeeti sikki yi ci soxnaam te ka ko ko mayoon di kilifa gu sori mel ne seeni baay daa bokk rek moom kilifa ga maye mook jigéen ji waaye mën naa bañ a xam sikk sa dañoo waxoon ne jëkkër ji du mën a dem ci kilifa ga naa ko fay ma laa defoon ci jigéen ji lañuy doolee leeral foofu rek mooy jigéen ja bu fekkee joxoon nañ ko can itam tan wax ne jëkkër ji mënta dellu ci kilifa gu sori googee naa ko delloo ma saa alal kon jigéen ji lañ ko joxoon bu fekkee ëppan na gën gaa néewi can te waxoon naa gën gaa néewi can lu mu toll ca gannaaw bu fekkee lañ ko joxoon ëppan na loola dañ koy nangu ba mu des gën gaa néewi can te delloo loolee mu ko ëppee jëkkër ji nga xam ne day bàyyi ndax sikk sim ci gis te amul ko ko mën a delloo alalam waaye nag jigéen ji faaw ñu bàyyee ko gën gaa néewi can ndax dañuy bañ jote gi ak moom am ba noppi te joxe su ko dara dara ci can loola moo mën wal mafqoodu ku ñu ñàkk maanaam kuréel rek lañ jublu yudrabu def na sadd mooy def na sàkkal la xooñal ko ajalul ab arbaamu sinina te mooy yenti at mi ñëw mi tarfaamu ci bis ba dana yëkkati zalika loolee dana yëkkati moom jigéen ji loolee mooy ba mu ñëwee ci àttekat bi wax ko ko wayan tax yi tey jeex alkashf gëstu ga xan walis ko yene jigéen bu jëkkëram jekkee jekki dem te xamul ci moom dara bu ko neexee toog di ko xaar rek bañ a dem ci àttekat ba waaye ndegam dem na te xamul fu mu nekk nag bu ko neexee mu dem ci àttekat bi yëgal ko ko ne ko ah sama jëkkër day dem na te xamuñu fu mu nekk su ko defee àttekat ba li muy njëkk a def mooy def ay gëstoom ba xam dana xam fu mu nekkam déet kenn man manam su gëstoo nag bu gëstu ba jeex te xamul ci moom dara nag su jigéen ja nangoo mu daal di koy àppal deleb ñeenti at ci kaw nag jëkkëram ji dem bàyyi na fi dund bàyyi na fi fu mu dëkk te it wóor na ko ne moom jigéen ji ragalu te mooy yàlla te bu ragalee mooy yàlla moom say boo ñu fase ko mu wutiwaat jëkkër su fekkee jëkkëram bàyyiwu fi dund mbaa fu mu fàttu te loolu mënu ko mu nit ba tey noonu kon di su ko tooloo ñeenti at yooyu waaye ndegam daal jëkkëram moom bàyyi na fi ab dund ak fu mu fàttu fu mën a nekk te moom mën naa muñ kon dañ koy appal diiru ñeenti at mu toog xaarandi jëkkëram ba am su ma tax taddu topp dana xiddawu kaa iddatil mayiti lu mel ne idday ku jëkkëram faatu su ñeenti at ñi matee nag moom te jëkkër ji ñëwut ñu nekk kon léegi iddawul idday ku jëkkëram faatu daañu leeral ku jëkkëram faatu na muy iddawoo te su boobaa dañuy wax ténj muy ñaawlu da koy defaale boole ja summa tatazawaju topp dana sëyiwaat incha allah ndem soob na ko bu idda ji matee rek mu daal di mën a wuti jëkkër wala yuura fi deful donn maaluhu alalam moom kookee xataa yi attiyam ba te dikkee xale ci moom mi ne zamaan ci jamono maa loo xam ne laa yaa incha du dund illaa mislihi ba ci am kemam maanaam nag dañoo may jigéen ji rek bu toog ñeenti at daal di iddawu mën a wutiwaat jëkkër waaye taxul na ñu mën a dogu ci ne jëkkëram faatu na kon jëkkëram alalam fi lañ koy bàyyi kenn du ko miraas lu may dañoo seet ne ba mu fi bàyyi ko léegi daal ku ko seet fi dundug jullit ëpp a toll àgg na ca. am nañu wax juróom-ñaar fukki at am nañu wax juróom-ñett fukki at kon dañuy seet ba muy dem fa mu toll woon ci dund ak lam ca teg boobaak léegi bu fekkee teg nañ ci nag loo xam ne ko seet boole ko loola dana war a mat juróom-ñaar fukki ci waxi ñenn ñi mbaa juróom-ñaar fukki at ñu mën a jàpp ne kon léegi nekkatul di dund doora miraas alalam nag léegi suñu nee day dem ca attikat ba wax ko ko te jamono yi daanaka li ci ëpp attikatu jullit du fa nekk kon day dem ca kilifa julit ga nga xam ne moo fa nekk mbaa mu dem ca mbooloom julit ña mbooloom julit ña seet kenn ci seen biir féetale ko mbir ma mu lijjanti ko ba tey li nu wax ne bu ñeenti at yi matee mu iddawu iddawu ku jëkkëram faatu mën naa daal di wutiwaat jëkkër waaw su wutiwaatee jëkkër ba noppi nag jëkkëram joojee feeñ ñëw mbaa ñëwut waaye xam ne ne ma nga ca béréb sàngam ci dund mbaa boog faatu na waaye bi muy faat daa fekk jigéen ji toll ci biir idda ja dong kooku am na teqale des koy tomb nag waaye takk-takk bi gën a gaaw rek mooy nga jàpp ne daal su fekkee ne jëkkër jiñ ko mayaat jotewut ak moom dara mbaa boog jote naa ak moom waaye moo ko tey xam na ne ci këram joojee feeñ na mbaa ma ngay dund ak yu demee noonu kon dañ koy delloo jëkkër ju njëkk ja waaye nag jëkkër yi ñaareel ji bu fekkee takk ga mu takk jigéen ja yoon gis na ne takk bu wér la te it dem na ba wéet ak moom te xamutoon dara ci jëkkëram ju njëkk ja kon dañ ko koy bàyyee moom jëkkër yi ñaareel ji ku njëkk ka xam ne ñàkk na wala tuxta bu deful labat almaratu jigéen fi iddatiha ci biir iddaam maanaam jigéen bu tolloo ci iddaw day araam nga wax ko bu wér ne ko dama laa bëgg a takk day araam sax nga xappati ci digg ba di ko wax loolu wala ba as ayut nag bi taaridi ci gaaral ga bil xawli ci wax ja almaarufi ja di ñu xam waaye nag bañu ñu nga gaaral gaaral mooy wax ko waxin wane ne yow mii am nga bëgg ci moom bu iddaam ji jeexee mel ni nga ne ko yow day xam naa ne bari nañu ñu ta bari na góor ñu taamu ku mel ne yow wala yow de xam naa ne lii nga nekk moom boo boo ci génnee dana bari ñu la njëkkante bëgg a njëkk ci yow waaye yoo xam daal dana ci xamee ne moom yi bëgg na waaye du sañ a xàppati ci digg ba wa man naka ku takk bi karan aw xiig fa la xoo ñal na ko ay yuqima mu sax indaa fa moom sabaxan juróom-ñaari guddi waaye bëccëgee ca la duuna saa iri ni saa yi ci dudul mboolem ay soxnaam maanaam boo amee soxna su yees te fekkan nga yor kenn mbaa lóopu kenn bala ngaa tàmbale yemale moom mi nga xam ne mooy soxna su yees si fekkee xiig la nekkul jeeg kon na ngay nekk ak moom juróom-ñaar yi guddi yu ànd bëccëg ya door a tàmbale yemale nag ñoom ñëpp nañ daa ay ayloo boo fi fay fi bu dee ci jeeg salaasat ayaamin ñetti fan su fekkee ne daa am soxna su yees soo xam ne jeeg la fekkan nag mu yor kenn mbaa ñenn loobu kenn kon soxna si yees yi da nekk moom ñetti fan guddi yaa bëccëgee door a tàmbale yemale ñëpp nag ci ay gaa wala yejji ma du sañ a boole benn ux tey diggante yaari mbokk yu jigéen fii mil ki yamini ci moomu ndeyjooru ga fi waxtu yi ca laal ga jamono yi jaam amee lay wax naa bu la neexee amee ñaari jaami jigéen mbaa ñett ñu bokk ndey ak baay ak yu demee noonu waaye nag doo mën a jotee ñëpp jote góor ak jigéen déedéet niñ aaye rek nga boole ñaari jigéen ñi jege ci wàllu soxna noonu lañ koy aaye fii itam ci wàllu nga moom leen tax nga bëgg a jotee ñoom ñëpp ñoom ñëpp ci seen saa déedéet fa incha ndim bëgg na waxtaal uxra laal ka ca des fal yu xarrim na araamal xale yi ci boppam farjal ula sawukaayu ku jëkk ga bi bay xin ci ak jaay aw kitaabet wala ak jotoo aw xitqin wala goreel wa shib yi ak nuróog moom mi maa ci lépp loo xam ne taxrumu dana mën a araame bi ca moom bu amee ñaari jaam yu jigéen wala ñett dañ jegee jegee goo xam ne sañu si leen a boole di joteeg ñoom mu doon joteeg kenn ba yàgg xelam nekk ci ka ca des day fexe ba kee nga xam ne moom ak bëggam nekkatu ca mu fexe ba araam ko bu ko jaayee baax na bu jotoog moom baax na bu ko goreelee baax na bu ko mayee mbaa mu saraxe ko yëpp baax na su boobaa nag mu door a mën a dem ci ka ca des wa man wattee ak koo xam ne laal na amatan jébéer bi mbir giñ sabab moomeel lam taxil la kon du daganati la xooñal ko ummuha ndeyam ja wala ibnatuha du jaageenu doom bu jigéenam wa taxarumu tey dana araam xala aba yi ci ay baayam wa abnaa yi ak ay doomam nga taxari mi nikaax yi niki araamaluk see boo moomee jaam bu jigéen bi lay tax yaayam araam la mbaa maamu araam la mooy nga joteeg moom waaye moomu kese rek moom ci jébéer bi taxul nag yaayam daal lay araam wala kenn am ni ki doom ba sesum dalay araam déedéet waaye bu doon ca takk ga moom boo takkee jigéen fi saas rek moom ndeyam araam na la maamu jigéenam araam la ba adduna tukki fii nag moom boo amee ab jébéer ba joteeg moom daal la la yaayam di door a araam mbaa maamu jigéenam ba tey nag doom bu jigéenam ak ub sëtam moom noonu lay wéy ba addunay tukki doo ci mën a jotee teg kenn ba tey boo amee jébéer jàmp jigéen bu xas joteeg moom say baay ak say maam jeexal nañ ca mooy sa baay ak sa maam ju góor ak sa maamaat ju góor yëpp jeexal nañ ca kooka ci mën a joteeg moom say doom it noonu bu ñu nee say doom say sët ca la li wutale foofu nag mooy bu fekkoon ni wàllu soxna la moom buñ la xasee fasal soxna rek moom doonte jotiwula ak moom dara it kañ la fasal daal nay araam ci say baay ak say maam jëm ca kaw daal nay araam ci say doom ak say sët ba ca kaw fii nag moom jote gi rek mooy tax araam googu am wattalaaku pasema bi yeddil xabdi nekk na ci loxol jaam bu góor ba duuna sëy di julul sang ba te newoon jaam balaa sañ a takk soxna te jaam digal ca ab sangam bu xasee takk ba noppi nag moom wàllu fase ga moom ci loxoom lay nekk bu ko neexee fase ko du aajoo mu ci laaj digal ci sang ba wala talaaq di pase li sabiyin ñel xale bu góor gone sañuta fase kilifaam ci boppam mooy seet bu fekkee ne fase gaa gën mu fasel ko soxnaam rek waaye gone moom kenn déglu fase wal mu mallakatu jigéen dañu moomal pase wal mu xayyaratu ak kañu tànnloo laxumaa ñenn leen ñoom ñaar ak yàq di yaa ñu àtte maadaamata li fekk sax nañu fil majlis ci jataay ba nee na sa soxna boo ne ko